déjà kontaan ci yéen rek xale yi nekk ci presse digital bi te bi ma commencé lii yëpp amul woon. vingt temps yëpp naa est amoon nañu juddu <laughs> non mais ay xale ngeen woon noonu damay tooj mais quand même ñu bëri xale woon leen ngeen ci woon. donc di kontaan ba léegi ngeen màgg bay mën a ñëw di wax ci loo xamante ne ñun bañ koy tàmbali euh, euh, amoon nañ ci sax pas-pas amoon nañ ci tamit vision mais euh, xalaatuñ woon ne dina toll fi mu toll nii ci. pas ci ci mm, économiquement mais ci rek euh, xale yi ñëw rek jël ko def ko seen affaire xam nga affaire bi dootul rek Adama Paris dootul Oumou si dootul Collé wala keneen affaire bi léegi xale yi la et loolu moo tax pour man dakaar Fashion Week man lu ma lu ma yàlla jox samay loxo rek la mais ñun ñëpp ñoo ko bokk te loolu laa bugg Sénégalais yi xam te loolu laa bëgg Sénégalais yi ñëw xam naa ñu dul ñëw sax ñoo ko dul xam mais ñii ñëw di ñu fekk si moom dinañ gis ne xale yi bëri nañ fi torop te du man rek lii fii xew nii man rek maa ko mën a yëngal. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. euh, mm-hmm. euh, parce que sama yaay lu may musa wax toujours ak sama baay même. soo gëmul sa bopp kenn du la gëm soo bëggul sa bopp kenn du la bëgg wala li ñuy wax soo soo wàccee sa ndaa ndaa boo dem fekk fa nit donc nit ñun dañoo war a xam nga Europe dañoo dañoo dañoo yàgg du question sa ay noot dañoo yàgg dugal suñu mentalité xale yi ay que ku demul France bokkoo ku demul Amérique bokkoo je pense que léegi génération bi seen génération bi yooyu yëpp yëngatu leen fii France yëngalatul kenn Amérique yëngalatul kenn xam nga fii li li ñu bëgg liggéey xaalis defar seen avenir fu ñu ko mën a defee rek nag baax na je pense que vision boobu ñun la ñu amoon ci njëlbeen bi ba léegi te loolu dara changé wul loolu moo tax xale yi mu mu yomb ci ñoom ñu ñëw fekk si ñu parce que ñun li ñu incarné Euh, depuis vingt ans ñoom dañuy ñoom dañoo si ñëw fekk si te loolu la ñu bëgg fi ne nii xale yi fi mu ne nii koo ne léegi ma jox la fii liggéey nga am sa teraanga am nga dem Amérique kenn du dem donc loolu vision boobu la ñuy bëgg tamit euh, euh, nit ñi xam ko te c'est vrai que ñu bëri dañuy yaakaar ne loolu sax dafa changé mode ay affaire superficielle mode lii la xale yi dañuy yara deku yéeg yéeg loolu dafa changé dama gis léegi fi ak 10 ans ay ay ay papa ay yaay ñooy ñëw dénk ma seen doom donc nga xam ne mode bi ba pare léegi même presse bi ici intéresse da ngeen di gëstu xool kii mooy kan kii mooy kan donc ça veut dire industrie bi yoo xamante ne lu bëri nekku fi woon lu bëri ñu créer ko te du man rek maa ko créé parce que léegi nii da ngay gis euh, producteurs yi te lu amul woon da ngay gis koo xamante ne métier rek mooy mu ñëw mu jàppale la nga defar sa défilé gis koo xamante ne habilleur la boo xamante ne da lay jàppale nga solu métier yoo xamante amul woon ci mode parce que mode bi styliste la woon ak euh, mannequin yi loolu rek la woon léegi da ngay gis ñi ci def carrière ay journalistes yoo xamante ne mode la ñuy def léegi nii ay présentateur donc di ci sant yàlla rek di xam ne ñun en tout cas man maa ngi fi pour euh, xale yi jàppale ma parce que man du man jàppale xale yi xale yi ñoo may jàppale parce que ñëpp dañ naan ah ngi jàppale xale waaye xale ku ko jàppale mu jàppale la donc euh, ñoom ñoo tax boobu ba léegi yàlla may ma tur bi euh, donc sant si yàlla rek et di di ñaan en tout cas jeunesse sénégalaise bi continuer gëm boppam continuer bañ a xaar ci gouvernement wala ci keneen ak keneen parce que euh, volonté daal lu bëri la ci avancement nit ñun nag dañuy yaakaar soo dee xale da ngay yaakaar ne soo amul xaalis mënoo def dara xaalis euh, xel a koy defar du mooy defar xel. du xaalis mooy defar xel. da ngeen ma ci critiqué de ma waxatee ba ngeen ñàbbati ma. Eh, eh, kii doo ci wax daf ma bëgg a wax loo fii. non parce que en fait man critiqué wu ma ko xeesal. mais man bugguma ko sañ nit sañ naa wax ne lii bugguma ko xam nga. man bugguma ko parce que pour man man kenn dàqu ma te dama ñuul donc du ma bàyyi kenn di ñëw yaakaar ne man su ma xeesoon laay rafet laay dàq. donc xam nga li ñuy wax compte ci benn lay tàmbalee sa bopp ngay tàmbalee soo xoolee sa bopp xool sa seetu ne man kat ku xees ki dàqu ma xëy na di nga mën a wax loolu sa doom eh, te xeesal du du question choix rek xam nga ñu par exemple man sama yoon nekk ci ay greffage ak ay xef ak yooyu yëpp parce que loolu yëpp ay artifice jigéen la jigéen moom il faut mu am ay salañ-salañ waaye loo xamante ne day yàq sa santé wala loo xamante ne mën nga ci am cancer ba pare loo xamante ne baaxul daal ci sa yaram je pense que lu lu du loo xamante lu bon daal kenn du ko ko fësal pour man mais après nag lu ñuy wax question de goût la léegi man comme man der ñu def ma neex te man maa moom affaire yi léegi ki ñu may <laughs> dama ci leen nag ngeen dem tourner sama wax nag oh, waaw non man nag non la non xam nga ku nekk su ku su ñëpp jàppee rek mu mu mu baax par exemple tey jii nii Adama ma lay toog su ko neexee mu def ay ñu xeesal. def ñuy fëlañ fëlañ def ko lu ko neex moom moo moom waaye ku nekk la ngay prôné la nekk sa xol te nga koy prôné war ngaa mun a am sañ-sañ ak ak tamit am am courage parce que loolu dëgg la courage taxaw nga wax ko ñu ngi nii man lii laa bëgg te lii laa lii laa nar a def te kenn duma ci génnee mhm. waaw man der bu ñuul moom tant que xale yaa ngi ñuul di rafet maa leen di mettre en avant. xam nga ñun depuis quelque années ñu ngi jéem vraiment fu ñu défilé ñu dem ci gox yoo xamante ne sénégalais yi en tout cas xamuñ ko lu bëri wala duñ ko wanee ci fànn bi ñu koy wanee ñun. donc ñun li ma bëgg xam nga dem nañ fi défilé ci ay euh, forêt de baobab dem ba ci digg euh, euh, kii yi baobab yi dem défilé fa. donc vingt ans lu rëy la ci ñun lu rëy la lu mag la te Gorée tamit amuñ fii lu ko fi gën a rëy foog naa ndaxte histoire bu métti la dëgg la ci der bu ñuul bi loolu aussi pour montre ne ñun euh, lu ñu doon dund ci passé bi loolu dépassé nañ ko ñun en tout cas génération bi même pas que moi jeune génération bi comme yéen euh, al en avant daal am na ñoom daal fi ne li ñu bëgg mooy defar seen àdduna defar ko ni mu gën a rafetee te Gorée je pense que euh, au-delà de histoire bi île bu rafet la tamit béréb bu rafet la te man originalité moom may moo ma neex tamit <laughs> ci loolu laa bëgg yëngu donc euh, ñu jël rek xale yi xale yi rafet yi ñuul yi rek wala ñu xees naturellement <laughs> yóbbu leen gode ah tubaab yi ñëw filmer ñu yóbbu ko Europe ñu gis ne euh, c'est peut-être le le de l'esclavage mais c'est des gens euh, c'est des jeunes gens libres dans leur tête libre seen bopp libre seen action ñoo fay def yu rafet du noonu laay jooytootuma man ay état jàppale ma xam loolu ci njëlbeen bi foo leen ma euh, foo leen ma interviewé ñi yàgg ma interviewé comme Adama damay waxa waxa waxa bay waaja dee defuñu ma lii defuñu ma laa waaye nag sant yàlla parce que suñu ma defalul maa ngi dem du dëgg laay demal nga laaj leen ko damaa bu ngeen dem laaj leen ko ñoom ñëpp ministre yeeg yooyu ngeen dem li ngeen may posé question nii ngeen posé leen ko ne leen lu tax duñ ma jàppale soo leen demee xëy na dinañ am tontu bu ñu leen tontu man daal xoolal li ñu li ma leen di wax nii gëm sa bopp mooy tax nit avancé ku ma jàppalewul dinaa dem ku ma jàppale dinaa dem donc jàpp ci rek moo gën ku ci jàppul tamit yaa ngi ci derrière di ñu xool parce que gis nga ñoom ah ministre yeeg xawma ñan ak ñan ñoom fii la ñu fekk te fii la ñuy bàyyi donc loolu du sant yàlla ku ñëw fekk ñu fi ku ñëw dem bàyyi ñu fi donc soo ma jàppalee baax na soo ma jàppul sa affaire la <laughs> macha allah léegi euh, pour euh, euh, may kii fànk bi di génnaat. li ba pare ñoom kaa wax leen si leen ndax ma bëgg ngeen kii ko. Hmm. gis nga luy dem. Hmm. tee nga cee dugg àndaale moom. man pour man loolu laa xam ne sama yaay loolu la doon wax. Hmm. ne na am na loo xamante ne yàlla moo ko tudd yàlla moo koy defar donc soo si jàppee mu dem soo si jàppee mu dem mais man nag dama weesu fu may dem di ñaanal dama weesu man fu may taxaw di géwél di ñaan di di kii dama weesu sax fu ma leen di xasee billaay dama leen ba waaw dëgg la dëgg la après ah, eh, vingt ans nag xam ngeen ko ñu ko waxee rek du du du un an du deux ans du benn du ñaar donc moo tax ñu def ko lu rëy démb la ñu ambassadeur euh, Angleterre gis nga ñoom Sénégal jàpp lañu waaye ñoom ñeneen ah, ñoom ñu euh, mu dalal ñu vraiment ci résidence am ñu def défilé bu défilé bu rafet at euh, xale yi jeune créateur ñu def recyclage tey jii tamit ñu defaat nar a def beneen défilé bu rafet boo xamante ne Briti nu mu tudd yi ñoo ci jàpp ñu ko def fii nii ci Pullman tamit ñoom tamit ñu dalal ñu fi mu gën a rafetee gis ngeen ci biti ni ñu ko def vraiment euh, suba di gore euh, vraiment ñu ñaan sénégalais yëpp ñëw jàpp si euh, y a encore des tickets à vendre ñu ñëw jënd ci jàppale ñu dimanche ñu ñëwaat fii nii mooy dima ma leen wax swap bi troc bi mooy échange bi dimanche brunch lañu am fii échange bi xale yi tamit gis ngeen parking bi ni ñu ko def Euh, mu yànji torop ñi ñi xale yi mën a jëw jël ay photo nekk ensemble parce que aussi fête bi du ñun rek fête bi xale yee ko gën a moom moo tax euh, ren daal ñu def ci affaire bi gën a gën a am solo daal ah merci xoolal kooku sasi la maa ko fay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 doon mbër ah seet sil ki nga xamante ni moo di soxna Nafi Fallou Fall soxna Nafi Fallou Fall aka doy a la voyante guérisseuse mbokk yi adresse baa ngi noonu cité Aline Sow